أغناني الله رب الجن والبشر عن أنا والأذى بسكر والبشار أناني الله رب الجن والبشر عن أنا والأذى ñu ngi teewal ko fi siyaareel ko te jottali ko sa yàlla te la ngërëmam lu jëm si yow te jóge ci mboolem mbokk yi ak murid yi sëriñ bi yàlla na fi yàgg yàlla na fi yàgg ku mën a jaboote nga la Seex laa doon wax ne lu nit fekk ci kilifa muura ma waaye alhamdulilahi rabbil alamin jëmm nga joo xam ne ni ñuy jaboote xam ko te samaam sa Mor Diarra dalaa wax ne fu gent am ñàkk yëgu ko waral yàlla dimbali leen nag yég nga mboolem bind fi téema ko ci mur yi téema di ko ci julli ñëpp nga yëpp yëggoo gi nga jëm ci bindee fi nag te jëme ko ci mën ñëpp yàlla na ci sa bana defal lu kowee sa njort ci nga yàgg ci sunu kanam waxe waxee ne dañu jàpp ne mënu doon am yàlla ko yàlla amal mu wax ne nañu fi ñëw mu yebal sëriñ Moustapha mi ak sëriñ Cheikh mii di kilifa ak yoon bi ngi ñu ñëw teewal ko fi ànd ak sëriñ Abdourahmane ak mbooloo njëwetu kër gi mu wax ne sant na yàlla bu baax ci njabootam gi am na mbégte ci ñoom lool ndax yàlla dogal na ci ñoom lim moom lépp jox nañu ko la ko tàmbali Cheikh Cheikh Bombali sëriñ Cheikh Mbacké Madina ba ci ki gën a ndawe ñoom ñëpp kenn ku ne la mom ci yow jox nga ko sëñ Abdourahmane ngi nii toog ànd ak njabootu jëwrinam sëriñ Moustapha njabootu kessu sëñ Daaru Osé na nga ne tok cheikh yi ci kenn ku ne yebal nga fi ndaw lolu fi teewal waye jamono deme no xam nak li ngay yene ak li ngay man dur tolo mo xam ne lii mu fi indi te indi ko ci turu kër gi su sañoon sax disu ko tudd waaye mu ni su ko jàkk tudd mu ñaari téeméeri million ak fukk ak ñeent ak ñaar fukki junni yu teg juróom-ñeent junni ak ñaari téeméer ak téeméer juróom-ñetti fukk yu teg juróom ñu ñaar dërëm su sañoon bu fi ñëwee nag ni Cheikh Moussa jiite woon sañ eh, eh, gannaaw sañ Tuubaa sëñ bu fi ñëw noonu la jiitoo ñëpp waaye jamono moo ko mayut loo mën a yéen du bokkale jamonoy def loolu nag liggéey baa ngi nii seeg baa ngi fi ñaari téeméeri million du may ñaari téeméer ñaari téeméeri million ak fukki million ak ñeent yu teg ñaar fukki junni ak juróom-ñeent ak juróom-ñeent ak juróom ak ñett téeméer juróom-ñett fukk ak ak moo wax ne sëriñ Moussa ngi nii toog ànd ak njabootu kasañ baar gépp ngir doxal la seen yaari wajur seqoon su la neexoon bari ni ñep te defuñ ko kon mi ngi lay denk nga ñaanal len sant na nga sant go xam yamul fenn ndax so la neexon ber seen yef di nga ba di indi te so boobaa duñ ci am jenn yaranga waye nangu giñ nangu nak la son amin tu lo defon tax ñu wër ko mais bëgg na nga eh, eh, dimbali len doli len ba ñëpp xam ne ko nañ mais nak mi ngi lay denk njaboot gi nga doli len taxaw te doon leen a dimbale ngir lii dimbale ci yoon yi sa loxo ne ndax ku mu neex sañ Tuubaa rek lii dimbale ci sa loxo te xam nañ lu ci waay am yéen nga ko lu ko ëpp loolu ne nag mi ngi lay doolu dénk boppam di la dénk di njaboot gi tey feddali yaakaaram ak pastéefam ci yow. jërëjëf ñoo ngi bi yëpp. sëriñ bi nee na jërëjëf moo ngi delloo nuyoo bi ak ziar bi yëpp. mënuma wax. sama mbégte. mu ne tey jii mënut ta wax mbégteem. ndax sama uh, mbirum bopp weesu na weesu na koo wax. ndax ndax mbirum boppam weesu na ci man koo wax. mën koo wane mën koo wane. dégg naa sëñ Moussa li nga bu baax mu ne sëñ Moussa sëriñ mi nee na kàddu yi nga yëkkati dégg na ko bu baax a baax. xam naa itam jëf ji bu baax. mu ne xam na itam jëf ji bu baax a baax. sëriñ Touba bii ngeen andi. mu ne liggéeyub sëriñ Touba bii ngeen andi. gis naa ko. mu ne gis na ko. yég naa ko na ko. waaye teewaayu njaboot gi. mu ne waaye teewaayu njaboot gi. fii fii sama mu ne fii ci kanamam. moo gënal mu joxoon ma àdduna ak li mu ne loolu moo gënoon ñu jox ko àdduna ak li ci biiram. noonu la demee mu ne noonu la demee. noonu la demee fi man. mu ne noonu la demee ci moom. maa ngi koy seereel suñu borom itam. mu ne mu ngi koy seereel suñu borom itam. di ko seereel Serigne Touba. di leen di leen gën a wan nag sama cant. mu ne di leen gën a wan ak cantam. ak sama ak ngërëmam. ak sama xel mu dal. ak xelam mu dal. ci gën gën leen a seereel. mu ne ci gën leen a seereel. di ko yeesal. di ko yeesal. muy sama jaayante. ak jaayanteem. ak sëriñ bi ak sëriñ bi. di leen gën a seereel itam. mu ne di leen gën a seereel itam. feddali gu ma war a feddali sama laxasaay. mu ne feddali gu ma war a feddali ay laxasaayam. fas yéene gën a sax ci liggéey sëriñ bi. mu ne fas yéene gën a sax ci liggéeyal sëriñ bi. te fas yéene ko gën a ànd ak yéen. te fas yéene gën a ànd ak yéen nag. te mu am ci xam ne nag. mu ne te mu am ci yéen yéene joo xam ne. yéen laa jiital sama bopp. mu ne yéen la jiital ci boppam. ndax xam naa jëf ji bu baax. mu ne ndax jëf ji xam na ko bu baax a baax. taxawaay bu baax mu ne xam na taxawaay bu baax a baax. xam na yéene ji xam na yéene ji. xam na yitte ji. kon nag kàddu yooyu rek laa mën a leeral ci li nga xam ne moo nekk ci man. mu ne kon kàddu yooyu rek la mën a leeral li nga xam ne moo nekk ci moom. waaye mën a le du du du du du mën a wone. mu ne waaye nekk loo xam ne mën na koo wone. bañ bañ bañ mën koo gis. bañ mën koo gis. waaye suñ borom nag. waaye suñ borom nag. mi ko def mi ko def. xam na ko xam na ko. sëriñ bi mu tax mu def ko. mu ne sëriñ bi tax mu def ko. xam na ko xam na ko. kon nag jërë ngeen jëf kon nag jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. fa tabaarakallah fa tabaarakallah. jërëjëf. wala وليس يرضى